ba tey bu njëkk ci leeral point net ñu àddu ci leneen ci cherté de la daal ab dundin gu cher cherté euh, dérisoire de la vie li nga xamante rek daal mooy euh, dund gu métti fii ci euh, Sénégal ay famille daal di ko daal di dund waaye ca loolu rek daal ngir si combe ci loolu dañuy daal di rek def ay xar matt maanaam rekk daal ut yeneen liggéey yi nga xamante ne bokkul ak dara ak seen salaire loolu daal la ñu di nemmeeku fii ci Sénégal gannaaw rek daal ak dundin gu métti lépp lu mel ni di gaz lépp a yokku daal loo xamante ne muy denrée alimentaire ca loola rek daal fu mu ne nii ci Sénégal benn sal rek daal di wul doy rek daal ngir euh, daal di combler lépp loo xamante ne muy ay dépenses yi nga xamante ne mën nañ ko nemmeeku ci famille yooyu fii ci Sénégal ca loolu rek daal ñenn ñi dañuy liggéey lu matin waaye nag euh, ngoon gi dañuy daal di xari mat rek xool euh, ana fan lañu mun a amee as tuut rek gi ñu yóbbul njaboot gi ndax euh, dundin gu euh, cher gi ñu nemmeeku fii ci euh, Sénégal même bu fekkee sax nguur gi mu ngi daal di def kéemtalaay kàttanam ngir wàññi ni ni mel waaye fu mu ne nii c'est au niveau mondial foofu rek daal daal di jóge ñu daal di xam le rek ni ni mel waaye gannaaw rek daal gi ñu waxtaanee ak ki nga xamante ne moom mooy professeur du lycée di muy monsieur Ndiaye moom nag daal dafa daal di wax ne rek daal day daal di jot ñaari salaire kenn benn salaire bi nag mooy moom professeur mat la daf koy daal di jàngale waaye concours particulier ngir rek daal euh, mën a euh, am ñaari salaire ngir rek mu mën a dundal li nga xamante ne mooy famille am convenablement comme mu ko daal di euh, waxee ci yenn kaay gile waaye loolu nag daal mu nekk li nga xamante ne dañ ko daal di nemmee ko bu baax a baax fii ci mim réew dindin gu cher daal loolu moo fa daal di am ab benn salaire rek daal daal diwul doy ngir rek daal mën a dépense lépp loo xamante ne rek daal da nga ko bëgg a dépense ci weer gi muy courant luwaas ak ndox ak lépp loo xamante ne daal aju ci ay devoir personnel li nga xamante da nga ko daal di soxla waaye tamit li njaboot gi daal di soxla wala ay feebar ak ni ni mel muy ay eh, imprévu yoo xamante ne mën nañ ko cee nemmeeku malgré tout sénégalais yaa ngi dund dundin gu metti ak ci loolu rek daal xarmat gi bëri na lool ci mim réew